collectif bi xeex ngir ñu bàyyi kii di Cheikh Oumar jaañ dinañ amal ab marche ci àllarba gi ñu dëgmal ñu koy doole ca rond point université fas yéene utali fii di rëbës ñi ngi xamle nag ne dinañ bàyyi Cheikh Oumar Diagne ci nii wala ci naa ñi ngi ko xamle ñi ki tey ji ci ñu doon amal conférence de presse. àllarba incha allahu rabbi mercredi dañuy woote benn marche doxu ñaxtu boo xam ne def nañ ñëpp lu ñu doon laaj. ndax droit constitutionnel la àllarba incha allahu rabi dañuy marché dañuy doxee euh, univers buntu université jëm rëbës ci buntu kaso bi te kenn duñu ko tere def nag dinañ ko def ci nii dinañ ko def ci nee te Cheikh Omar Diagne Macky Sall na xam ne dina ko bàyyi ci nii wala mu bàyyi ko ci nee. collectif bi nag daal di ëmb ay mouvement yu bëree bëri ñoom nag ñu ngi ñaawlu video Cheikh Omar Diagne bi ñu wane muy circulé te mu nekk fële ca Rëbës bëgguñu lu dul toroxal ko. ñuy génne image yu yoo xam ne mosul génn Sénégal ñun xam nañ ci dara ñun dañoo def kaso defaat ko. xam nañ ci dara dafa am ay doom yu ndaw ñu gis seen papa ñu wat ko wane ko noonu di ko jéem a toroxal teguñu ko fenn. ñoom nag ñu ngi interpellé ànd sàmm jikko yi ak kilifa diine yi ngir ñu soobu ci xeex bi ndax nee na njaay doole gi bëri na fii ci Sénégal. te man damay interpellé ànd sàmm jikko yi ñi ngi seetaan ñu ngi seetaan ñoom on en a vraiment marre quoi ñi ngi seetaan nañ jug ñu ñëw taxaw ñu fexe ñu taxaw Cheikh Oumar Diagne parce que man lii dafa ça me fait ma jàppee man la ñuy def. jug leen ñu taxaw ñu ànd ñun ñëpp ñu taxaw Cheikh Omar Diagne parce que joxe bopp rocc lamit bi du dëgg ndax dafa jaaduwul Sénégal am ay kilifa diine am ay responsable yu fi nekk kilifa aada am ay nit yu responsable yu taxaw di seetaan Macky Sall ànd ak góor jigéen ñi ñu lëkkaloo du tëj kilifa gu mel ni Cheikh Omar Diagne. kiig fàttali Cheikh Omar Diagne ñu ngi ko teg loxo ginnaaw ba ñu ne dafa def lii di diffamation maanaam dafa jiiñ góor jigéen kii di député Djibril War waaye nag collectif bi ñoom nee ne dinañ def seen kéemtulaay kàttan ba jële Cheikh Omar an foofu ca kaso ba ndax du am